fii ci marché bu Serekunda bile barab nemmeeku nañ fa ay sénégalais yu bari ñoom ñile ñu ngi waaj yile élection texte duñu xamal ni lan la ñuy xaar ci yile candidat bu ñu sukkandikoo ci Modou Gaye di ab jaaykatu café fii ci marché bi li nga xam moo ci gën a yitteel mooy premièrement bi moom liggéey liggéey ndaw yi moom man daanaka man programme bi moo ci gën a yitteel moom daanaka loolu la liggéey ndaw yi emploi bi daal moom yittal na ma trop trop trop parce que boo gisee comme situation yi nekk fii génn dem ci yeneen extérieur dem ci yeneen réew ñuy jaar lépp daanaka ñàkk ñàkk moyen yi toogee sa dëkk moo ko waral waaye fekkoon ne moyen nga foram 100 pour cent am nga loolu lépp du am ñii ci café tubaab ñii ci leneen ak leneen leneen ñuy jaar ci désert bi dem ay baag yooyu yëpp mën a ñàkk léegi képp kay kii ñëw nag moom ku fi yàlla andi moom liñ koy ñaan moom mooy na fexe ba nit ñi ndaw yi am liggéey loolu ndaw yi nañ am luñ mën a koo évoluer seen dëkk. Ahmadou Bamba Ndiaye moom di rafetlu li nga xamante ne mooy discours yi les candidats. waaye mi ngi ñaawlu li xew fële ca Tamba. waaw cinq candidats yi ñoo ngi leen di suivre bu baax a baax a baax cinq candidats yi ñoo ngi leen di suivre bu baax a baax ba pare candidats yi nekk nañu ay candidats ya nga xamante ni ay candidats yu am euh, maanaam ñoom ñëpp daal kenn ku si nekk am nga poids kenn ku si nekk am nga poids gis naa ni ñaa ngi leen di topp. té kenn ku ci nek tamit ya nga wax la nga xamanteni wax bu wax bu sawun la wax bu yanu maanaa lay doon waaw deug deug ñoo ngi leen di suivre campagne baangi ne xeyna xey kay lenn rek mom lañuy nakarlu moy li nga xamanteni ni xewon Tamba. mu bok ci jigéenu sénégalais yu jaay ci bile marché fi Ndiaye di ñaawlu lool li nga xamanteni mo xew ci campagne bi. tek ci muy lancé appel askan bi ndax ñu bu baax fu ñuy tek sen tank campagne momitina tarna waye man limay ñaan limay ñëk ñaan yalla subhanahu wa taala mi nga xamne mom rek mo man ci barke Seydina muhammad yal na ci jamm mujj yal na ci ñëk yal na ci mujj na jamm ci lepp xacc ay doomi Sénégal lan ndam li gënu dem fen Macky Sall bu gagné Sénégal la yemaat boo Idriss jek gagné lepp ci Sénégal la foogooy mu rafetal ko mu rafet nak métti na de léegi dafa metti rayante bi métti na defante ñaawi ñaaw na bi métti na doy na waar man gis nga président yi ñoom bu élection commencé danaan coppe seen doom yóbbu Europe teg leen fa ba élection yi passé seen i jabar ñun di ñu ñëw dëggam déet léegi yow mi nga xam ne i Sénégal nga war a nekk Sénégal war a woote foogoo nga woote li ngay woote pare ci waaye ngay gàddu ay xeex moom mu jël doomam yóbbu Europe jëli jabaram yóbbu Europe jëli biyam teg benn place ndax doom mooy référence ëllëg yow ngay dof dof lu yow ñu la dugal ci ay guerre akub xeex ngay xeex dee bu dee góor a say jabar ñàkk ak say doom boo dee jigéen a say doom ñàkk ak sa famille pour lan ku ma ko jaral Macky saal yàlla tere ku ma ko jaral Idrissa Seck xalaatu ma ko ku ma ko jaral ña ca des neefa eva du ma ko defal kenn man man sama président sama président bopp laa Macky Sall joxuma juróom Idrissa Seck joxuma juróom xam nga ku may jox lii may jox yow. ay fan yi néew des ci yile élection ñu ñëwoon fii ci bi ngir amal fa ab reportage loolee sax tax nañu xam ni élection yi du Sénégal rek moo koy préparé.